ñu nuyu leen bu baax ziar leen jaajëfal leen baalu leen ak di leen baal ak di nuyu suñu mbokk indo ñuy bàyyi xel di ñu suivre saa su nekk mbégte la ñuy am suñu waree jàkkaaroog yéen chaîne bi ngeen tànn seen bopp muy Dakar People comme ni ñu koy defee spécial lamb tey nag ñëw nañ fi nga xamante ne Aïcha mooy Grand Yoff ceci fait un grand champion muy Fourrière Furel ku ne xam na ni dafa dugg ci làmb yàggul mais marqué na empreinte am mais xoolee ay sa teg la nag quatre défaites mais dafa ñëwaat def retour bu am doole ni mu bëree keroog ak caatu dolof doy na waar keroog ñëpp dar seen nopp ne est-ce que kii Fourrière la mu bëri bëri bu neex bëri bu am important tey nag moom laa dala ci spécial làmb Dakar People ay saa laa ci àndal saa su nekk nee naa la liy neex wala lii rafet moo ma koy jox ayaa ngeen ciy àndal dama koy nuyu moom Fourrière jox ko mu nuyoo après ñëwee li nga xamante ni mooy waxtaan bi ay ca champion bi nuyu na waaw maa lay fay di naan onge billah laa bisimilah inna yàlla sant yàlla bu baax a baax julli si yonenteema sant suñu ñaari waajur di nuyu waa Garaaf bu baax a baax a baax baax waaw lii moo lay wan ne fourrière moom sans frontière la quoi ndax fourrière fu nekk fépp la xaj waaw li may fi may wax nii man maa ngi si digg ñànkataam bi quoi maa nii pàq ba xam nga man ak sama gars yi ñoom lu ma wootee rek ñoom ñu ngi si waaw di bëggee mafia grand yëpp yëpp yëpp man aw ma fenn sens interdit fourrière sans frontière la ñu wax waaw te man grand moom ma ñor moo waa grand di ma safoo saa su ne. Mm-hmm. Aïcha Aïcha noonu la nuyoo moom Fourrière la grand champion Fourrière Aïcha dañu dugg ci li nga xamante ni mooy waxtaan bi gis nañ nga jël caatu jolof duggee jóge ci quatre défaites jël caatu jolof pourquoi choix bi nga ñëw jël caatu jolof. waaw choix bi mooy marqué sama retour rek ak ku mu munti doon baax na mais man naa marqué sama retour rek. te sama retour booy booy teel nañ ko xam quoi maanaam dañoo teel a liggéey si loolu noonu. comprendre teel a nekk ci organisation bi di daw lu ne ñu dañu ñu jànkonteel ko di daw rien ko pour am benn fond yi rek nga xam ne bu combat bu taxawaatee rek dañu am nu ñu mel. comprendre nga teg réussir nañu pari bi quoi. waaw léegi nag bañ bañ si jugee dañoo dañoo waxaat beneen combat. muy le 4 le 4 mai. waaw le 4 mai. waaw lu di ci woowaat waa Grand Yoff yëpp xam nga gaa yëpp ñëw dooleel ñu comme ni ñu ko daan defee rek ñoom moom. ñoom dañuy soxla jàmbaar quoi parce que ñoom ay jàmbaar lañ fii ñu nekk gis nekk sama ginnaaw ñëpp ay jàmbaar lañ dañuy takk seen seret dañuy dem dóor yi ñu waar waaw ñeneen ñi tamit dañoo am métier dañuy dem dóor yi bu ko booleeg saret bi par exemple métier bu doxul ñu dem dem takk seen saret dem waari ji moo la woon ne grand am na bu ne ñun duñu ay bandi duñ duñu ay malfaiteur ñun ay jàmbaar lañu fii grand fii ay jàmbaar ñoo fi nekk keroog gars yi dañoo def lu lu loo xam ne teguwul quoi mooy maanaam buum yi dama waaw dama dama dugg yeneen mbër yi ku ci ñëw da ngay du dem rek jàll mais xam nga ñoom bu ñuy kii dañuy jot dañuy jot signe nga xam ne booy Grand Yoff day bëree ma ñëw dugg gars yi gars yi wàccee sama sama élément yëpp gars yi wàccee leen comprendre di leen palper du ne ñu dugg ci di palper oto bi di dugg a ah xam war a bëreewaat tamit bu muy ñëw ñoom ñëpp rangaloo sama samay supporter comprendre xaar ku yëngal rek ñu wàccee la malmené la te loolu du yoon ñun Grand Yoff lañ dëkk Grand Yoff la ñuy tiitaroo waaw il faut gars yi bàyyi xel ñun deret bi rek moo ñu ñor te tamit day am tamit ay booy yoo xam ne dañuy ñëw Grand Yoff di nantewu comprendre nga man euh, booy dañ koy dund ay deux ans lañ koy dund jeel man dund naa quatre ans lu gën a métti jeel te ñoom dañ bañ ko dundee jël dañ ko jooy fu ne man dama ko dund ànd ak sama ngëm-ngëm xam nga nekk saa su ne saa may dox booy Grand Yoff yi di ma gën a dooleel naan ma jàmbaar jàppal day baax comprendre man si loolu laa nekk instant yi kenn du ma wax dara xam naa lépp. waaw ah, noonu la demee. ayca am na solo macha allah Aïssa waaye nag sareet bi fi mu toll nii yow frère ba sareet bi du du këpp. Eh, ñun fii naaj de fii ñun dañuy fii dañuy soulager de fii bu fekkee wax rek laa la booy bu ñu waxee nga nga nga taf sa gémmiñ ah. barki Serigne Touba joxal booy maay bi nga xool. ay ayca am na solo macha allah ayca fourrière dañuy ñëw ci li nga xamante ni mooy préparation ni nga préparé caatu jolof ndax boo xoolee combat bi ci biir combat bi ak ni nga bëree ñëpp dañ ne non est-ce que kii fourrière ñu gis beneen retour de fourrière sànq yaa ngi koy wax ka ni mhm. boo waxee ne Grand Yoff gars yi dañ ne Grand Yoff dañuy salteel mais pourquoi yéen buñ ne Grand bu fourrière amee combat wala keneen ko xam ne dëkk na biir Grand Yoff am combat buum yi dañ leen di sonal pourquoi loolu yéen loolu étiquette la étiquette bu ñu koleel mais fii ja fii mooy lu mu la fii ay jàmbaar ñoo fi nekk ay dóorkatu waar ay ñafekat ku ci nekk boo amee sa kër ngay yóbbu waaw parce que ku si nekk fii soutien de famille nga waaw kon fii ay jàmbaar ñoo fi nekk waa waaw gars na ñu gars yi nañu jox cër gars yi jox cër waa grand fii ñeneen ñeneen secteurs yi ñoo ñu gën a salte fukki junni yoon ñoo ñu gën a yàq fuuf mais ñun luñu lépp lu ñuy def nante maa lañ koy def ñun bu fekkee stade dañuy sol lu clean comprendre nga jënd ay tête yu seer jënd ay dàll yu seer dem stade mm-hmm. supporter suñu mbër jë defar ay base defar lu nekk mm-hmm. dem supporter suñu mbër mm-hmm. fii ay jàmbaar ñoo fi nekk voilà ñun daw ñu leneen lu dul jàmbaar. xëy na sax mënuma matal supporter yëpp mais est-ce que euh, des fois boo amee combat di ngeen dajaloo comme si que peut-être wala combat bi après ay semaine moo di ngeen dajaloo di waxtaan seen biir comme si que lii leen police def ngeen xam ko waaye. waaw man boo xoolee man man fépp fu nekk gang bu nekk fii biir Grand Yoff man am naa fa benn nit. comprendre boo xam ne dund naa ko moom enfance wala dund naa ko parce que man dama dund man presque booy yi ngay gis génération yi ngay gis yëpp ku si nekk da nga dama dund ak yow lu rafet. te saa su ne doo ko mos a cuub foo dem laa la wax gars yi fu ñu dem mafia fu ñu toog bu ñuy wax beneen mbër sax da ngay gis kooku day jóg siisu ne ko man Fourrière rek. waaw kon kon loolu kon lu mu lu mu leen lu ma liggéey ak ñoom la ko waaw mais dama gis tamit xam ma benn bis. Euh, xaw ma open press moo amoon fii nii kii Adrien Senghor ma ñëw foofu xam nga géwél yeeg affaire yooyu noonu xam nga am luñ ma luñ ma attee benn ñàkkal buñ ma attee muy mel ni kon ko si benn benn vaurien moo ñëw rek koo xam ne dëkkul grand moo ñëw comprendre ko ma siisu dugg mhm. depuis ba ma jugee ci loolu laa dem nag ne damay boole lu ma neex lu ma naqari yëpp tërën mhm. waaw parce que gars yi dañu bëgg jàmbaar te nag dañoo instant dañoo bëgg ku taxaw samp mhm. waaw léegi nag dama tay taxaw te pour dëggal sama bopp. mais pourquoi xam nga man Grand Yoff laa dëkk man boo comme suma gisee beneen beneen mbër mu ñëw rek xam nga gars yi waa Grand Yoff yi yëkkati ko affaire yooyu noonu dëgg la nag ku nekk soppe moom fu nekk lay jugee ko mais su ma gisee comme benn doomu Grand ñëw gars yi di ko mal mëne man loolu damay sisu dama bëgg sama sama doomu gox man boo gisee boyen booy ndaw yi bëre sax man dama leen di conseillé dama leen di topp parce que Serigne Touba parce yaakaar ne Grand Yoff dafa war a am ay champion warul am benn champion bu mel Fourière wala benn champion bu mel ni Zarko naan fa ay champion la war a am waaw ah, loolay yoon quoi. waa mm-hmm. am na solo macha allah ayca Fourrière ñëw ci biir ko bi sa digganteeg caatu jolof ni nga bëree keroog. caatu jolof du ma ñëwee du ma bëree keroog mafia bi jàmbaar laa ñëw rek mm-hmm. ku ci nekk woo ma sas ma mm-hmm. ne ma nijaay gem ma ne na ñu ne ma bu sa loxo jóg ñun xam la lañ soola bëreel ak bëreel ak bëreel ba waa Sénégal xam na ne carrément da mën a bëree. moo tax moo tax bañu ma woon ku ma cuub gis booy bi cuub na ma cuub yi métti men bañu ma ko woon. waaw bañu loolu. jàmbaar mooy mooy mooy jël ku mm-hmm. waaw jàmbaar mooy dékku ku mm-hmm. barke Serigne Touba ma encaissé ko mm-hmm. ne bërëb bi su mu ko jàppee man maa luy wa neex si làmb ji war a def quoi. waaw te loolu laa appliqué mais gis euh, bi dafa yàgg parce que Fourrière boo xoolee ay combat am arbitre day dox si sa kaw mais dañu gis keroog combat parce que temps bi dem na sax bay jeex après nga boo gisee loolu combat bi dafa mele woon dafa mele woon grand bi yëpp ba ci imaam yi sax sama kër comprendre naan ma ngir yàlla boo demee ngeen wax Fourrière mu teey ngir yàlla ñu mu koy wax di ma ko répété di ma ko répété waat mhm. kon man su ma ñëwee demee neneen rek da lan la ñuy wax mhm. waxoon naa ko mhm. waaw tamit da nga leen déggaloon ay kilifa ñu ñëw wax la benn affaire boo ñëwee danga koy appliqué waaw te ñu man man ndigal rek laay man waa grand rek laay topp lu ñu wax rek loolu la. mais combat lan moo tax nga doon parax paraxee say la voilà yow nga waroon njëkkee sax parce que loolu loolu moo tax tey jii man ma ñëw dal ndax xam naa ne booy lu ñu nante woon noonu man daax man grand laa juddoo grand am na bu ne. façon bu ne am na Grand Yoff mhm. moo tax ma naan booy loole loole ñu teg ñun Grand Yoff lañ dëkk mhm. dëkkuñu ko ñu féeg mhm. noonu la demee nag waaw. mais kër gis nañ ci biir xeex bi dañuy gis beneen fourrière bu ñëwaat retour nga defaat ndax boo xoolee quatre défaites yi nga teg mu mel ne retour bi. dafa am solo kër bëri nga benn xeetu bëri boo xam laa de laa jàngee lépp su bëree gars seen gémmiñ Grand Yoff jàngee man Père Diaw laa débuté quoi ñëw commencé bëre arène bi rek di Grand mbooloo mhm. damay sant waa Père Diaw bu baax di sant waa Grand mbooloo bu baax mhm. nekkatuma seen écrit sax mais su ma ñëwee day day mel ni falaa falaa falaa nekk quoi mhm. ah, parce que nit ñoom dañ may bëgg dañ may accueillir wan na ma fii sa kër la saa mu ñëwee loolu lañ may wax benn baat boobu saa di gëj fii ndax fii sa kër la kon dama leen sant bu baax a baax di leen gërëm boo xoolee ku toogoon séer sax sama sama làmb kooku écrit Grand mbooloo la nekk. waaw may père Mor moom moom moom sama papa bu baax ba bañ na ko parce que bañ may nduróo lekk moom naan ma kon xanaa sa papa la affaire yooyu noonu ko waaw dama koy nuyu bu baax a baax di ko kontaane di kontaanee waaye ki di garaan bu baax a baax di kontaanee Zarko ak ñëpp ñu fa nekk ñoom Nandi Fall gars yi gis naa taxawaay bi rafet na voilà. sa digganteeg Fourier. sa digganteeg euh, Caatu Jolof Caatu Jolof sama digganteeg moom arbitre dafa sifflé ma ma jox ko cër bu moom rek mais reculé wu ma reculé ma ko paade. waaw dama kaa jo waaw moom laa lay wax bañu ma loolu. bañu ma loolu mais du ma ko reculer pas sama morom yi booy nii di wax nii booy ni naan ay maa leen mag ñoom ñëpp samay morom lañ man damaa teel a sob parce que jàmbaar yi ngay gis nii ñoom laa ñoom laa àndal ñoom laa guju ngandoo ñoom xam nañ ma comprendre amul benn booy buy taxaw fi naan ay maa la mag c'est-à-dire ay affaire yooyu loo wax ñu ne xale xale laa bind yi ñoo bokkul man maa leen ëpp doole maa leen mën léegi la nii léegi la nii léegi la nii booy ñemee ma waa yow eh man man gong laa gong maa leen gën a dof fuf man gong laa voilà noonu la demee maa leen gën a déggoo ma ne man dafa amoon daa am si lu may seet rek mais kon sinon man maay gën a réew ñëpp yàlla xam na ne daa am si lu may seet man Baye Fall laa Baye Fall dafa war a am leen loo xam ne da koy wane mais booy di nante wu nii gënuñu ma nekk nante gënuñu ma dof mafia bi nii ñoom xam nañ bu baax. xam nañ bu baax man lu ma capable ak lu ma capableul waaw noonu la demee. Ah, bi ngay tegle carte défaite ci yenn jafe-jafe nga nekkoon parce que Fourrière daal après da ñëw kenn xamatul kenn xàmmeewu la. comme si que ñu doon wax bu gaawee découragé day bàyyi laam nga ñëw defaat beneen retour bu am loolu noonu yëpp jàmbaar la. jàmbaar ñoom ñoo man ma jàpp. mooy xam ma expliqué naa la ko ci commencement jàmbaar ñoom ñoo tax ma jàpp mais dem dundu leneen quoi xam waaw xam nga ma ne la deux ans deux ans la booy dund kaso man deux man quatre ans laa dund lu métti mooy li ngay wax ni ay défaite ak affaire yooyu quatre ans laa dund lu métti toog dëxañu comprendre dama jàpp ne day neex parce que lu métti jàmbaar rek lay dal lu métti góor yàlla lay dal na nga doon Baye Fall nag doon taalibe sëñ Fallu kon lépp lu ñëw si yow rek waa da ngay accepté quoi xam ne yàlla moo la ko teg xëy na un jour la ko teggeel waaw noonu am na solo Aïcha macha allah ba tey di leen fattali yéen ngi fi nga xamante ne mooy mooy ñu ngi fi nga xamante ne mooy Grand Yoff c'est un grand champion muy Fourrière Fourrière ku ne xam ne ne woon dimanche bi passé moom ak ki nga xam mooy caatu Jolof mu am ci ndam bi gannaaw bi teglee kat dafa defar retour li may faral di wax rek ndaanaan la champion la te jàmbaar la ndax retour bu am doole comme noonu yaakaar naa ne ndaw ñi am na ci ñoo xam ne boo leen xool mënuñu ko Aïcha Fourrière nga daan caatu Jolof yàggul waaw loolu noonu yëpp boo boo gisee lu ko waral mafia bi la rek waa Grand ñoo gën dooleel ma xam nañ ne man maa ko am saa yu may dox loolu lañ ma gem mën naa ñu ne ma yaa ko fa am waaw gem alalu alalu la rek fii lépp loo lépp lépp loo gis booy di ko nante woo biir Grand fii la fii la sokkee koo déggoo lu ma la wax booy yi gis boo eh, booy yi gis booy yi ngay gis booy yi ngay gis ñuy na bi ngay wax fii lay nante woo waaw nice saa yuy sant laa lay wax de de koy déglu saa yuy sant grand frère njëkk sant du sant. booy booy suñuy fils lañ waaw nice booy suñuy fils lañ demal nga déglu interview mi saa yuy sant grand frère lay njëkk sant voilà nice. grand mooy fii mooy fii mooy fii mooy Sénégal boo bëggee dégg dëgg fii mooy Sénégal waaw lépp fii lay xewee fii mafia bi mooy mafia quinze waaw waaw 15 nice. waaw ay jàmbaar rek ñoo fi nekk nag gars dañuy xëy dem dóor yi waaw fii ay Baye Fall ñoom dañuy dem dóor garawaay lu ne dañu ko dem jaayante ji man policiers laay waxal ñu bàyyi lu ñuy def man su ma amee combat kenn du saltel policiers yi ñoo war a bàyyi dóore yi waaw ñu nag ñoom du ñu ay noon ay frère lañ ay doomu ndey lañ parce que bu ñu gisantee si mbedd bi day day nice dafa war a nice waaw fii booy booy booy booy déggal nañ ma te neex nañoo waxal man pour si man man ku ma ci wax yemal day yem parce que am na benn cër boo xam ne jox nañ ma ko damaa damaa tëggoon bi am na benn match boo xam ne mu ko tëgg benn booy yor taxaw foofu di ndellu mais dama ñëw dama ñëw jàpp ko mu jël mu jël jam mu yoroon mu jox ma ko taxaw lëngu ma loolu mooy wane am na wenn cër boo xam ne ñoom jox nañ ma ko quoi. sa booy tamit booy lu la ñuy lu la ñuy du ñu indi dara. gaa yi ñoo leen waaye yow non gars ñu ko le motif rek gars lu ñu indi waaye gars yi dara lañ dul indi. ñun deretu Grand Yoff mooy daw si ñun Grand Yoff moo am bayre lépp lu mu dugg mu safe voilà. pourquoi bu ñu tuddee Grand ne Grand ay bandi ñoo fa nekk. duñ tooñ kenn mais ku leen tooñ jot seen jikko noonu la demee fii fii mu voilà gis nga gis nga fii gars yi dañuy dem jaayante di ñëw gis nga ñëpp dañuy dem jaayante di ñëw gars yi ñu ngi soog a wàcc nii retourné boo xoolee saret yi saret yi gis nga instant ñu ngi soog a retourné ñun waa naaj. xamante ne mooy côté mobilisation bi gis nañu Fourrière boo amee combat euh, Grand Yoff yi ñëppay génn ñëppay ñëw sori la ci bis bi jàppale la sa digganteeg jeune Grand Yoff. sama digganteeg jeune Grand Yoff lu naaj rek lu xale moom nga joxo ko lu mag moom nga joxo ko maire ak paa yow xale yeeg kii nga gis jeunes yi nii nga gis de mais maire yeeg paa yi barki Serigne Bamba luñ may ñaanal su ma demee di bëre ji ñoom ñëpp kenn du kenn du kenn du añ kenn du reer da ngay téye sa kurus di ñaan ay waay sama doom ji yàlla na ko yàlla may ndam comprendre nga. loolu xam nga loolu noonu loolu sag la moo tax ñun dafa jot ñun ñu fayee ko ci làmb comprendre nga moo tax ma ne la sama kase buy ñëwaat dañ koy xaatim te noon la gars yi dégg nañ message boobu bu baax a baax waaw dañ xaatim nañ ko loolu yàgg na moo tax ma ne la man man instant ak bi ma jël ni pour ma doon millionnaire du métti parce que gars dañ ma gars yi dañ may yaakaar mafia bi dañ may yaakaar bu baax a baax waaw loolu ñu def si code rek naaj. Ah. waaw retour waaw yaa moo xaatim nañ ko yàgg na échange kay mooy loolu naaj waaw naaj kay. ayca merci beaucoup euh, grand champion Fourrière am na solo ay tey ki ñu dalal xale la ndaanaan la champion la ndax boo xoolee tey ay kombaam dafa métti. Euh, ndax Fourrière dafa bokk ci làmb ay saar xale la boo xamante ni li may faral di wax rek day mobiliser stade te day bëre macha allah tey nag moom la dalat fi nga xamante ni mooy mooy mooy mooy Dakar People Aïcha euh, Fourrière dafa mel na nag waxtu bi jeex na in faut ñu tàggoo rek dem ba beneen kala ni damay damay santaat yàlla bu baax a baax sant waa Grand bu baax a baax man aw ma ASC aw aw ma aw ma koñ aw ma dara man Grand laa am Grand laay tiitaroo man du ma ne zone 7B de ndax du jiboo damay bàyyi yoon bi Grand Yoff laay wax de Grand Yoff laay laay laay woo comprendre nga parce que boo gisee ma lay wax ni man dama dund Grand loolu moo tax ma mun la nettali lu bari si Grand te tey jii keneen ku ñëwoon keneen ku ñëwoon fii nii bu bu ma laajee si Grand Yoff damay sawar a wax moom parce que man dama xam lu nekk si biir Grand Yoff Grand fii ay jàmbaar ñoo fi nekk bari Serigne Touba fii ay jàmbaar barki Serigne Touba man waa su gisee su ñu si bëri laa lay wax bu ñuy dem di di xaw di daw peloton si leen si leneen sax daa fekk seen dëkk moo tëggul moo tax mais Grand Yoff mooy lépp barki Serigne Touba fii mbër bu fi taxaw dëggal boobu lu nga bëgg da nga ko am ci làmb waaw naa waaw ay ñoom Zarko man ñooñu ñoo ma jàngal bëre man ñooñu dama leen tarbiyu ay Zarko ay Nandi Fall ñooñu dam leen tarbiyu dama nekk seen wet di di ko jaayante su ma demee suñ demee bëre ji suñ ñëwee kele bu ñu kele bu ñu def man si laay focus su ma ñëwee entraînement moom rek laay di ko jàng di ko jàng moo tax booy amul kenn ku si mën a wax ni la Fourrière lii lay bëree. amul benn booy laa la benn booy mun a la Fourrière bërëm lii la wala bërëm lee la moo tax saa yu ma bëree yéen ñëpp da ngeen taf seen gémmiñ parce que fu may fëlee yéen doon doon ko doon ko foogee quoi. waaw boo xoolee dama dama gis ay booy yu nantewul di di wooye seen bopp Messi. waaw dama leen di wan ne ñoom kele yu ñu mën mën naa ko ba mën lu ko lu raw lu ñu mën te mënuñu ko waaw kele yooyu ma kele ma def moo tax ñuy wooye seen boobu Messi de kele bu ma def keroog moo tax moo tax ñuy wooye seen boobu Messi de man mën naa loolu ak leneen waaw noonu la demee yow gis nga loolu onze onze victoire laa am demal tapé nga xool sama seize combats laa def onze victoire cinq défaites déggoo lu ma la booy man ak ñoom laa la su ma demee ba bëre ñoom nii nii nii ay ay mbir rek waaw mais ñoom ñoo ma la gën a xam ñoom bu njëkk laa la wax sama avance day day wër day wër day wër kii dakaar a ah, ñoom ñoo ko bëgg ñoom ñoo bëgg bëre man nee nañ jaarukaay laa déedéet déedéet ñoom ñoo ne jaarukaay laa man man nekkuma di def loolu de man damay dal ak jóg man nekkuma fii di di di bëre ak ay booy ni ñu may yeb de man daa am fenn bu fenn fu waa grand teg seen bët ci man loolu laa bëgg a kii voilà voilà moo tax booy yem ma booy ku ci jóg rek ne jëlal fourrière jaarukaay la loolu la ñuy wax man damay dal ak jóg man nekk ma fii di bëre ay booy ndaw ñu may yab de voilà dama dafa am grand foo xam ne ne nii laa ñu ma fay séntu man foofu laa loolu laa bëgg dem jëli. est-ce tey jàkkaarloog mbëri wax ak ñoom ci fulla nga ne leen man bu ma kenn yab dama sa morom ndax fourrière xale yi fi mu toll nii jaarukaay la waaw nañ dund rek dinañ gis. ñoom fii xale gem dund leen rek di ngeen gis da ngeen di nantewu da ngeen di nantewu di ngeen xam ne lépp fii buujoo yéen chaque jour fii ngeen di ñëw di nantewu te xoolal saa yoon duggee fii saa yoon fii gem gars dañ may ne carrément diw dugg na fii diw dugg na fii lu ngeen fii def yëpp xam naa ko barke sëriñ Touba te yéen daw leen daree jàmbaar balaa ngeen koy xam ñu doxal ba ci kanam barki Serigne Touba fii kekk lañ nen du fi bonde maay wax maay wax bekaay mu naan ma mu naan ma ay ay paala ay mer la bu ñu dalantee gis nga bis bu ñu dalantee laa lay wax bu ñibbee bu ñibbisee parcelle dina ne parcelle fii fii kekk la ndax këj bu dëgër tey laa xoolal tey laa gën a tey laa gën a baax suba moom ma yéem mais tey laa gën a baax. mais yow booy Fourrière war ngaa xool góor yàlla comme yow naan meer. waaw waaw ah non seen yow seen seen seen kalaama la seen kalaama ah. lu ma lay wax benn la sa wax maa ngi la koy di la ko waaj sa bëre xaayul yow bëre woo lu ma yéem. te ci diggante bi xaju fi munoo fi munoo fi jàng lu ma yem comprendre nga ñun na dañoo tarbiwu démb tey soog a ñëw comprendre su ma su ma la defee lii boo bañee dama lay def les force day nangu dangay nangu par force yow xam nga ne nga xaw ma kër nga danaa la arnaqué maa la gën a dof zëngal bi ngay waxal nag nañ dem ba ci kanam. ayca merci beaucoup ñu waaw damay nuyuwaat waa Grand Yoff rek waaw joxal si mu wax tuuti. cik waaw yow kii kii wax rek lay. aja waxaa yow taxaw xaar xaar yow lay yow yow lay yóbbante Bécaye yow bëri woo kii mooy bëri Fourrière. waxal boo demee mafia bi. waaw waaw gars yi ñu dellu rek ñu dellu. boo demee nga ne ko Bécaye moom ginax la te ginax du yurnu jaalu muus. barke alxuraan cooli cooli biir parcelle la bu ñëwee ba buntu arène nationale day crevé mook ay supporteurs am ñu dañuy teg paa tegaat paa gam-gamal xaal mu yaa supporteurs yi fu waa aw yoon la. kii kekk bi la nen bu bonde si kawam xam barke alxuraanu karim dëgër këj saf sapp pàcc kaani li ngom wër na yàlla. Bécaye na ko da doon daw xeeñ mu ngi door a dugg si biir foos nag barke Serigne Bamba boo demee nga waxal lool nag waaw. te sànq maa lay dégg ngay wax ñu naan ay grand ay malfaiteur ba ñun dañuy xëy suba fajar job ba guddi ba jant sooy pare wàccee suñu bopp maaseeg suuf si ne jërëjëfe Maam Bamba ay Baay Faal lañ barke alxuraanu karim soxla wuñu alalu jaamur wër na yàlla lu ñuy def amuñu si complexe ji nga gëb la ngi nii 15 gëb la barki sëriñ Bamba waaw fii lépp am na fi barki Serigne Bamba waaw Bécaye nag yow ginax nga nag te ginax waru yurndu jaalu muus wax naa la ko nag bula la 4 jote jotee barki Serigne Bamba di nga xam ne lépp dëgg la nag bilaay walaay jaajëf waay zëlle bi jërëjëf frère ñu tàggu waaw waaw damay nuyu ñoo xam ne dañuy jàpp sama làmb quoi parce que gaa grand bi yëpp ku si nekk da ngay jàpp sama làmb waaw ñii dañuy yëkkati seen 10 000 ñii di yëkkati seen 20 000 di ko dajale di ma ko jox naan jàppal ay bloc comprendre dañ koy dajale ba mu mot boolok jox jox mu ko waaw dama leen ni bëggee bu baax a baax grand ku lim juum di bëggee dinaan mention spéciale ak Abdou Aziz Samb quoi. 800000 la ma may bañ ne suba la combat bi lépp ma jàpp ko ay ma jàpp ko te man aw ma leneen lu dul Grand Yoff quoi parce que man damaa bëgg damaa bëgg jeunesse su Grand Yoff man du ma sañoon laa la wax jeunesse Grand Yoff ku ma si fëgg mën a la mën a la gongo waa mais mais ñoom ñoo la gën a xam lu nekk ci xol yi daal waaw noonu ayca waaw dama koy sa man du ko dolli sax dama koy gën a dolli. loolu xam nga dañuy santaat yàlla julli na Muhammad sant suñu ñaari waajur frère suñu rakk la suñu lépp la ñaari question rek lañ koy dolli mooy mu gën yokk bu def benn mu koy maanaam mu koy gën a yokk ndax olof nee na benn lam du yëngu te fu ñuy xàmmee ne lam yaa ngi nee rek mooy lam yëpp yëngoo doo moom xale la amul lu muy perte ci làmb mu ngi mel ni day doog a départ man boog sama xalaat li ñu koy doole mbaa ñu koy gën a di ko encouragé daal di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram aussi tamit yéen ñu leen di sant yéen nga xam ne yéen a def déplacement ñëw dooleel suñu rak waaw kon dañ leen di ñaanal di gën a encouragé di ñaan yàlla yéen tamit li ngeen di liggéey lu ne mbaa li ngeen di yóotu ci làmb lu ne yal na ngeen yal na na am réussite yàlla defal leen si taw féex waaw di saaraat kulluhum daal. waaw waaw dañ dañuy wax ñëpp ñu abonné bi rek Dakar People ah waaw man tur bi sax dafa njëkk a neex Dakar People waaw loolu loolu yomb na tapé quoi nga abo ñu abonné ñëpp abonné si. ci Dakar people Dakar people <laughs> Dakar people Dakar <laughs> moom laa lay expliqué nee la grave gars yi dañoo xaay gars yi ñoom lépp la ñu xam naaj kay Dakar people people people people people la anglais la. people people waaw ñun bàyyi eh, jàng nañ de nijaay waaw. merci beaucoup yàlla ñun jàng nañ euh, merci beaucoup ñu koy koy jaajëfal di ko kontaanee di ko wax macha allah xale la boo xamante ni daa naa làmb la moom Fourière mais saret bi bu ma teg yàlla bu mu daw ay Fourière lii bu dawee dinaa daanu de. Eh? Fourière am na ñoo xam ne sama gàcc rek lañ yàkkam di ma daanu ci saret bi waaye baax na amul problème ay <laughs> ca jaaja ko fas bi la ñu dalal ñu toog waxtaanee ko macha allah ndax nee naa la ñun ci mool bi ci mool bi ah d'accord ci mool bi la waxtaanee macha allah grave am na bu ne. waaw lañ lay wan waaw bu ne am na fi. booy fii la ñuy rootee déggoo lu mu laa de booy no booy fii la ñuy rootee loolu nañ ci def kot dek bii di ñëw mooy dàq déggoo lu mu laa de booy fii la ñuy rootee eh booy yëpp laa la booy ngay gis ñuy nante wu yëpp fii la ñuy rootee ah. barki Serigne Bamba Mbacke ñoom xam na ñu baax lu mu leen di wax. waaw ah, bon damay damay masawuwaat damay masawuwaat waa Grand bu baax a baax waaw ci nakar bu leen dal quoi keroog ba ñuy bëree xam oto booy ngor yi xam nga moo moo moo këpp ci kaw booy Grand fii te booy booy ngor yi daal ñoo ñoo ëpp ay blessé sax daanaka uh, booy bu am fii blessé booy boobu sama mbokk la quoi dama koy nuyuwaale bu baax a baax di ko masawu comprendre keroog ñun bañ demee bañ demee kii nii bañ demee hôpital gis nañ ci booy ngor yi booy ngor yi fekk man dama ma demee ma mu fekkee damaa fàtte lépp sax fàtte naa ne sax am naa am naa victoire ndax ndax ay blessures yu métti bilaa di leen masaw bu baax a baax di masaw Siteu bu ngor ak waa ngor yëpp maa leen masaw waaw di masaw waa Grand Yoff bu baax a baax a baax a baax waaw di ma sama mbokk yi di woowaat sama mboku séeréer yi nana leen seen doom a ngi nii jàppale leen ma képp kuy séeréer Morolan maa ngi lay woowaat woowaat sama mboku bawol bawol yi sama mbokk joolaa yi sama mboku njaago yi sama mboku soose yi et eh, Grand Yoff Carrefour la Grand Yoff am na bu ne Grand Yoff fii ma nekk nii waalo waalo yi ñu fi bëri pepel yi criol yi ñëpp bàyyi ñu bàyyi nu ngi koy ah, ñu kenn mankaa ñi ñëpp tout ñun Grand Yoff lañ dëkk ñun dëkkuñu feneen Grand Yoff lañ dëkk Grand Yoff dafa carré lépp lépp mu ngi fi. waaw nice. jërëjëf kontaan ci moom Aïssa la grand champion euh, Fourrière ñu koy béggee di ko jaajëfal di kontaan ci ñëpp Aïssa di jaajëfal ñëpp di wax nag tey euh, Fourrière lañ amoon tey comme comme invité macha allah ci spécial lamb ñu ngi koy jaajëfal ndax li may faral di wax rek Fourrière xale la boo xam ne ndaanaan la macha allah bëri na ay combat yu neex yu mag mais boo xoolee quatre défaites yi mu tegle moo tax boo yi fi mu toll nii wax dëgg yàlla bëgg ko def jaarukaay ku jug ne ma jox ñu jox ñu a a yi mooy fourrière day encouragé ki nga xamante ne mooy jaatu jot di ko wax làmb noon la xale yëpp ay ndaanaan la di kontaan ci ñëpp di jaajëfal ñëpp di wax ba beneen yoon ci beneen émission spéciale làmb jërë ngeen jëf